def say cours en ligne euh, boo ko déggee rek euh, foog ni yëf yi dafa yomb ndaxte euh, pour amal ko faw nga am. machine se connecter à des wifi. boo ko déggee noonu nag da ngay foog ne lépp yomb naam nag am na luy ñuul ci soow mi. fekk nga war a def cours sans contact physique ak professeur ou autre day wàññi lu bëri. mën nañ ñëw rek bâcler cours yi foofu. des fois y a des bugs des fois ça marche pas. perturbation yooyu nag di jural jafe-jafe étudiants yu bëri. Euh, ku ci mel ni awa nag euh, bokk ci promo 10 bi euh, dafa soppi doxalin. soo teelul dugg heure yi ñu la jox pour ngeen def cours en ligne doo mën a accéder ci plateforme bi pour teel dugg ah suñ la joxee heure emploi du temps bi heure bi ngeen am cours rek nga jéem a fexe def le tout ba entrer ci plateforme bi rek. mu mel ni rek euh, toog sa kër di daal di def say cours euh, du lépp rek euh, moo ci bon bu ñu sukkandikoo étudiants yu nekk ca université numérique Cheikh Hamidou Kane bu Mermoz. cours yi nañu permettre ñu mën a di jàng di ko booleeg soit liggéey wala peut-être boole formation académique bi ak beneen formation professionnelle. su examen yi jege tamit étudiants yi dañu organiser ay groupe de travail fii si ENO bi. ba ñu jëmmalee UVS. ci atum 2013 ba léegi nag université Cheikh Anta Diop de Dakar moom képp moo ko ëppale ay lim ci wàllum étudiant mu mel ni rek ñoo ngi def ay jéego ci wàllum njàng mi bu ñu sukkandikoo nag ci lim bi nga xamante ne dañ kaa fësal L1 seeni taux de réussite daal di jóge ci 61 pour cent daal di ñëw ci 76 virgule 31 pour cent li ni mel nag la ñu nemmeeku ci ñu nekk ci seen ñaareelu at. Euh, taux bi nag daal di jóge ci 67 pour cent daal di wutali 82 euh, pour cent pour promo 7 bi.